départ de vacances bin dal daal di tudde daara ya jàmmalaay tàmbali na di ber ya mbok ñaar fukki fan ci wéru août atum 2023 ci xuntuma ci ngor xale yi dal di ko nak ci gox yu wute daje fa ci diirub ñaari ay bëss ñu war fa jang nak lu bari kilifa yi daal di fa teew ngir firndeel tàmbali ndaje bi. Moussa Ba moo daal di jiite comité de pilotage camp de vacances bi. ñuy daje fii tey pour lancer septième édition bu daaray Jamalay bi nga xam ne camp de vacances religieux la seen euh, fédération des daara Lay du organisé que. en 2014 la section pilote de la fédération des Dailands du Sénégal Nous sommes première section si nous et son président Djibril Ndiaye yàlla ko sunu borom ba la ay mi allons la rendre hommage édition bi la de vacances lii nii dafa Le de vacances religieux ni innovation qui est la ndax dañu def programme bu diine jàng xale seen ibaadaat ñu xam ba jàngalem seen alim alayhi salaam xam ibaadaat yi ba pare boo bokk aussi ñu euh, exploité ay tam ya nga xam te ne nii dañ koy exploité ci école yi te ministère de la jeunesse daal di koy indi teg ko muy thème national yooyu aussi xale yi dañ koy exploité échanger ci ak seen encadré ay moniteur ñu yee ñu ñu yeewu ci daal di ci tontu lu jëm ci wàllu numérique.

Euh, nan lañ nan lañ koy téye donc loolu mooy tem na tem thème thème national bi. ci turu groupement central Seydina sa Diop laay daal di yëkkati kàddu jëm ci njëriñu camp de vacances bi. ndaw ñii nga xam ne ñoom la ñu dajale séjour bi ñuy def moo xam deux semaine la wala trois semaine la dina indi miineel ci seen biir entre ñoom ñu xamante ca xame goo xam ne gi bu ëllëgee la muy jur kenn mënu koo xayma. waaye bi ci des it ñu xame ci seeni ibaadaat ndax bare yaana bu ñuy ñëwee fii dinañ leen jàngal loo xam ne lii kenn ku nekk dina xam lu mu xamuloon walla mu gën a mokkal lu mu xamoon kon te lépp di diine te béréb bi ñu koy defee it symbole la ndax yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ba mu bàyyi koo màkk fii la wàcc ginnaaw fi la wàcc nag bu ñu fi teewee di fi def mbir mu mel nii di tàggat xale yi ci diine ak nag ci mbiru àdduna ndax fii jamono tollu thème central bi ngeen jël nga xam ne numérique la ak ci biir numérique googu réseaux sociaux yu li nga xam ne lii moom lay jur mu mel ni kon paaka la boo xam ne bii bu bari njariñ la dafa war a dagg waaye waroo cee def luy lore kon élément technique la boo xam ne bii imma am na njariñ waaye nag buntub yàqu dafa jaar buntub tooñ da caa jaar. waa CAP di toppatoo lépp lu jëm ci mbirum euh, xale te banqaasoo ci ministère de la femme daal di fa teew ci jëmmi Fulbert jox donc euh, ñun mbégte la si ñun ñu ñëw fii fekkee euh, débulencement activité wu daaray Jamalaay yi di fàttaliku comme ni ko Moussa waxee. Euh, partenariat moñu moñu moñu lié partenariat Nous la euh, vraiment organisation bi ak ni ñuy yi euh, éduquer franchement on a vu que modèle bu am solo la lu en plus sax c'est le faux. sax wasaré ko ñu exemple ñu réitérer tamit partenariat Eh, sama teewaay bi may wane ne carrément que ñu ñu ngi continuer liggéey bi jot nañ euh, recevoir euh, euh, bureau bureau fédération bi pour même réitérer suñuy suñuy suñuy suñu suñu suñu bëgg suñu liggéey mais encore tamit jéem a xool naka la ñuy améliorer suñu partenariat bi pour mieux parce que dégg nañ lépp lu ñu fi wax par rapport ak gën leen a jàppali pour xale yi encadreur yi lu am solo la donc ci kattanu yàlla dinañ si taxaw bu baax a baax. Abdoulaye Samb mooy adjoint maire Ngor. comme ni ñu ko waxee ci turu Ngor gépp ci turu daayira bi ci turu dëkk bi waaye ci turu it commune bi e, ñu ngi rafetlu bu baax événement bi ndax ku sañoon am ko sa dëkk comme ñun la ko yàlla terale nag ñu ngi si sant yàlla bu baax e, di ko encourager. ndax lii duñ si mën a wax sax si côté administrativement trop ndax dañ ci bokk bokk gu sori ndax comme ni ko Alaaji waxee euh, Moussa fàttali ko ñun ñoo initié woon lii réunion bi Ngor la amee woon ñu doon proposé que section bi ñu gëm ko téye ko comme ni ko Moussa waxee président téye ko waaye moom mit Moussa mu téye ko ànd ak ak ñëpp ñoom seen ambañoon ba yàlla dogal mu am ba tey ji di continuer di am kon bu ñu toogeewaat fii représenté fi maire bi di fi teew ak sant yàlla rek di gën a rafetlu itam thème bi nga xam ne ni jamono toll na si ak defaroo ngi ci ak yàqoo ngi ci. lépp daal di am nag ci kilifteefu Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ibn Seydina Maam Alassane Laye mi nga xam te ne moo fa daal di teewal Seydina Laye ibn Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye. gone yaa ngi nii. outil bi outil bi. mooy li ñuy waxtaane tey. mooy li ñuy waxtaane tey. def ko tem. def ko ndax sang bi woote fii. ndax sang bi woote fii day. mooy espace ak temps. mooy espace ak temps. tey boo bëggoon symboliser espace ak temps. tey boo bëggoon symboliser espace ak temps. da koy dugal ci numérique. da koy dugal ci numérique. jël lu ndaw. dañuy jël lu ndaw. muy puce boo xamee. muy puce boo xam ne. loxo ci sa baaraam nga koy teg. ci sa catu baaraam nga koy teg. te ci la adduna di wëndaal. ci la adduna bi yépp nag di wëndaalu. espace ak temps kon espace ak temps tey jii tey jii suñuy pexe suñuy pexe teg nañ ko ci suñu baaraam teg nañu ko ci suñu baaraam kon ana borom bi bind cey xereñteefu xel. nee na fu xel. bi mu ñu jox bi mu ñu jox. ñuy dox ñuy dox. ku dem ku dellu woon ginnaaw. ku dellu woon gannaaw. en 1909. en 1909. pour nga créer. pour nga créer. puce boobu puce boobee. xel tollu wu fa woon xel tollu fa woon. waaye tey jii waaye tey jii. xel tollu na fi tollu na fi. bi alxuraan di wax. bi alxuraan di wax. doom aadama di gane àdduna ni doom adama di gané aduna wax lumb wa mu doon di wax lumbu wa mu doon parwa ba muy accroché ak parwa ba muy accroché ak ñen fukki guddi yu ne na muy développé ak ñen fukki guddi yu nek na muy développé science amagul waye tay ji waaye tey jii mën nañu ko démonter kon lepp dal dina tambali mu wara jeex nak ñetti fan ci wéru septembre atum 2023 la ilaha اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين